ca na Thiénaba daf daan wax ni. ndigal ndigal. mi ngi mel ni euh, euh, fajar. mi ngi mel ni fajar. day gën di leer rek. nee na day gën di leer rek. ñàkk ndigal. ñàkk ndigal. nee na mi ngi mel ni timis. nee mi ngi mel ni timis. day gën di lëndëm day gën di lëndëm rek. kon yal nañu yàlla teg ci ndigal nee na kon yàlla na nu yàlla teg ci ndigal. gërëm naa ñëpp. nee na na ngeen seede ni ñëpp gërëm na leen. sant naa ñëpp. nee na sant na ñëpp. di ñaan yàlla nee na sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla fu taalibe ne fu ab taalibe nekk ak mbokk moo xam ni ak mbokk moo xam ni déglu nanu déglu nanu te man ko te man ko woote na nu gàmmu gi ne na ñëpp xam ni sëriñ bi woote na gàmmu gi nañu wuy si na ñëpp wuy si nu sukkandiku nag nee na nag ñoo ngi sukkandiku la Baye Saliou Mbacke waxoon la Baye Saliou Mbacke waxoon dafa daal joxe ab eh, ndigal dafa daal di joxe ab ndigal ne gàmmo gi. ni gàmmo gi. fu waay nekk. fu waay nekk. ña koy def. ña koy def. ku ko deful. ku ko deful. demal ca ñooña. demal ca ñooña. ànd ak ñoom. ànd ak ñoom. wettali leen. wettali leen. mayit maa ngi woo ñëpp. mayit maa ngi woo ñëpp. ku màggali woon. ku màggali woon. boo ñëwee boo ñëwee it. te mu xaj fa. te mu xaj fa. noo ngi lay woo. noo ngi lay woo nga gàmm si ak ñun. di woo ñëpp ñëpp rek. taalibe yi maa ngi leen di gërëm taalibe yi maa ngi leen di gërëm xam le di leen xamal ni di leen xamal ni kër gi noo ko bokk kër gii kat noo ko bokk ëppale wu ci kenn ëppale wu ma ci kenn barki démb dong barki démb dong maa nga woon ca sàppe ya maa nga woon ca sàppe ya di déglu ndigal di déglu ndigal tey su ma toogee fii tey su ma toogee fii di joxe ndigal di joxe ndigal war ngeen a xam ni war ngeen a xam ni def defub yàlla def defub yàlla rek la waaw kon nag lépp lu ma leen jox. lépp lu ma leen jox. sa ngeen ko saytu. nangeen ko saytu. na ngeen ko déglu. na ngeen ko déglu. na ngeen ko jàpp. nangeen ko jàpp. na ko fonk. na ko fonk. ndax njariñ la rek. ndax kat man njariñ rek laa leen di jox. loo xam ne nii. loo xam ni. ñun ñëpp ko ñun ñëpp a koy bokk bu sottee. lii sama itte. nee na sama itte moom. lii sama bëgg-bëgg. lii sama bëgg-bëgg. lii sama xalaat. lii sama xalaat. mooy. mooy. nu jàpp tariixa bi ñun ñëpp nu bokk jàpp tariixa bi. jàpp kër gi. jàpp kër gi. jàpp bokk gi. jàpp bokk gi. wëllëre yi yi xarit yi xarit yi yëkkati canaba yëkkati canaba ba ku ko seen ba ku ko seen da ngay téen fa tabaarakallaahu da ngay téen nawaat canaba man loolooy sama bëgg nee na lii kat mooy sama bëgg-bëgg te loolu laa bëgg nee na te loolu laa bëgg ngeen jàppale ma ci yéen ngeen jàppale ma ci bu ngeen ma ci jàppale su ngeen ma ci jàppalee yàlla may ma yàlla may ma ko may leen ko leen ko muy seen ndam muy seen ndam di sama ndam di sama ndam yàlla nañ ko yàlla yàlla nañ yàlla defal sant naa ñëpp sant naa ñëpp ñëpp ñëw na ñëpp ñëw nañu di ma déglu di ma déglu lu ma ne ay ca lu ma nga nga ca te kat keroog bi Cheikh eh, Serigne Thiénaba demee ne keroog bi Serigne Cheikh Thiénaba demee Serigne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck amul genn kër nee na amul genn kër gu jiitalul njabootam gu jiitalul njabootam ñëw ñëw fas ak man man amul dëkk yi wër. nee na dëkk yi nu amul benn dëkk. amul benn dëkk. bu kilifa ga. bu kilifa ga. akub délégation akub délégation. ànd ànd. ilimaan ilimaan. chef de village chef ñëw ñëw. fas ak man fas man. kóllëre gi kóllëre kon nun ñëpp. nee na kon kay nun ñëpp. daa mel ni wàcc nanu dafa mel ni wàcc nanu. waaye nanu laxasu waaye nanu laxasu rek. nun daal nun daal. man daal la ma waxoon. la ma waxoon laa wax. laa waxaat rek. sama gone yaa ngi nii sama gone yaa ngi nii xale yi. nee naa leen nee may siiwër. na ngeen may suivre. sama tànk sama tànk. bu bëggee jàdd bu bëggee jàdd. la ma waxoon la ma waxoon. na ngeen ma sàbbaal nee na na ma sàbbaal. maa waxoon ni ñëpp laay boot heure bu ma bëggee jàdd na ngeen ma sàbbaal. waaw loolu daal. nee na loolu daal. maa ngi ko wax. maa ko wax. te di leen ko. te di leen ko fàttali bàyyi loo xel di leen ko bàyyi loo xel. kon. amiin.